may jubanti benn wax boo leen di wax yéen ñëpp dama leen di dégg ngeen ni Cheikh Ba futur maire de la Médina loolu dafa sore la bon expression mooy Cheikh Ba prochain maire de la Médina expression boobu moo gën a wóor futur dafa sori prochain mooy li ñu dëgmal dee leen euh, dee saxoo loolu parce que loolu mooy li ñuy ñaan yàlla ñaanuñu mu sore dañu ñaan mu nekk ci bii yëpp yëpp